Sénégalais aussi ñun kàddoom ci lépp loo xam ne rek actualité bu aju ci réew mi muy suñu doyen di suñu xarit di suñu mbokku taalibe borom Andalaburi borom New York Cheikh Ahmed Cissé moom la seen bés di am ak jotaay sëriñ bi Cissé mon frère damay am ndégte saa su ne vraiment ci am ak yow jotaay mais mënul ñàkk aussi ma di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamee nii waxtu wu ma sàkkoo jotaay nga yombalal ma ko Cissé. maa ngi lay fay congaan alustas di nuyu képp seen bés di nuyu ñi nekk ci ginnaaw ak ñi nekk ci kanam di nuyu sénégalais yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina di nuyu gambiens yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina di nuyu képp koo xam ne ku am cofeel ci ñun la am yërmande ci ñun te di ñu jàppale ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ci ñaan ci jëf ci time ci anything we appreciate it may am kontaan te teewaat fi beneen yoon ndax damay yëg ne seen bës suma kër la loolu dama koy yëg sentiment bu ma am la. dëgg la. Mhm. jërëjëf si alors sëriñ bi mënul ñàkk ma commencé ak yow ci li nga xam ne mooy actualité c' est vrai que mënuma bañ a njëkkee ak yow ci loolu mu jëm ci kaaw ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck mine de rien aussi ci say wëllëre la bokk. bokk na si ñi nga xamee ni tamit machine judiciaire bi bi mu déclenché ak léegi bokk na ci ñi si nekk gum victime wala bokk ñi si. ki tey ci suba jàllale nañ ko mu war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne ni mooy procureur woo biñ ko woolu ba yoon daal di koy teg loxo di ko tuumaal ni wax na wax joo xam ne waxuwul wala du wax joo xam ne dafa tegu ci dëgg ba tax muy jëflanteeg yoon lu ciy sa xalaat. Ah, xalaat bi damay laajte ñi nga xam ne dañu bokk Pastef nekk ay sympathisant wala sonkiste li tax. ñi nekk Pastef wala sonkist nekkul ne dañoo dégg projet comprendre ko waaye dañu gëm ne jaay doole la den koy tooñ ñi sotle ko dañu gëm ne den koy néewal doole ñi sotle ko ñooñu laay laaj mhm. question ndax dañoo gëm ne Sonko mu ngi ci dëgg wala nañ ko doon jaayee doole lay jaayee doole muy article quatre-vingt ak yeneen ak yeneen ñooñu lay laaj loolu su ma leen laajee loolu ba pare ma wax ne Ousmane Sonko ndax dafa soxla ñu fàttali ko ne gënt jàng ci réew mi ëpp fi expérience waaye li tax ñu déglu ko mooy jàpp ak dàq buñ ko dàqutoon du am bës ak bayre ndax mu nekkoon dafa amoon ay kilifa yu muy déglu kilifa yooyu am kilifa ba ci ñeenteeli kilifa gi waaye boo gisee mu am attention nit ñi jox ko nopp teg ko ci seen gët yi mooy lañ ko dàq benn ñu dàq ko ba pare di jàpp ñi simpati ak moom ku wax ci moom lu rafet ñu dàq la ku ko faral ñu jàpp la moo ko may doole boo xam ne nit mësu koo am ci réew mi même xalifa général yi amuñ ko mooy lan joxañ ku amul charisme bi joxañ ku amul jëmm ji joxañ ku amul xam-xam bi joxoñ ko amul expérience bi ni kii laa bëgg ngeen falal ma ñu fal ko Ousmane Sonko yàlla may na ko loolu Sénégal. sëriñ bi nga baal ma bi commencé ba léegi da ngay tudd ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom premier ministre la ça n'a rien à voir évidemment ak li nga xam ne mooy jàpp ak Cheikh Yérim Seck du homme politique du opposant boo xam ni bu mag buñ mën a wax na xëy na kuy opposé Ousmane Sonko lu tax nga jàpp ni arrestation bi loxo Ousmane Sonko jugu si te Cheikh Yérim Seck di koo xam ne rek dafa libre di wax xalaatam du opposant aussi boo xam ni. jàpp nañu ni war na mën a déranger kii nga xam ne mooy Ousmane xam nga Ousmane Sonko kañ la am problème ak Cheikh Yérim Seck mooy ba mu yónnee ci moom man li may wax dama ko xam ndax seex Yérim suma xarit la dafay ñëw suma kër damay dem këram dañuy déggante lu mu guddi guddi su ma ko woowee dafay jël téléphone lu ma guddi guddi su ma daf may jot mu ngi am problème ca ba mu woowee Ousmane Sonko ci dossier bu Ousmane Sonko doon lijjanti Cheikh Yérim xam ci lu bari. Cheikh Yérim na ko moom du wax ak opposant ci mbiru état fala Ousmane Seck njëkk Ousmane Sonko njëkk a mere Cheikh Yérim muy benn ñaareel ba Cheikh Yérim bindaat benn livre tudd ci incident bu salte bu xew ci benn opposant ci corniche bi ak jigéen xel yi dem ci ne Sonko la te li lay won ne Sonko defantekat la ku mënta muñ tontu bis bu amee doole boo ko waxee loo ko warta mu jëflante yow ndax koo gis muy wax rek amul pexe mais ki mën du wax day jëf wala mu boole wax ak jëf koo gis muy ñaxtu hmm. xataraayu démontrer dafa amul doole rek mais bis mu ne soppi loolu du fa yegg la preuve soo gis kuy fittu naan dama bëgg saw may leen ma ma saw day dem na si mi tubéy ji saw parce que mën naa saw te dafa bëgg a saw hmm. léegi nag mer mii la ko jàppal Cheikh Yérim xam lu mel nii bul fàtte ne jamono élection yi fekkul fi Cheikh Yérim Seck mu ngi woon Paris. ba ñu mujj wax muy nekk Paris dafa amoon ay ambition waaye bi soo ko waxee benn xaritam ne Cheikh Yérim moo xam li tax mu daw su ma ko jàppee ci ñi may jàngal leçon moom ci la bokk ci la Cheikh Yérim ñëw senegal toog. sëriñ li ngay wax li ngay wax ni ay accusation mais dama ko xam na congaan waxantuwuma du lu ma fabriqué ma ne damay déggante ak Cheikh Yérim ma ne suma ma xarit loolu laa wax dëgg la xam nga soo ma laajoon ci keneen damay analyse rek wax suma xalaat mais bii dama mhm. xuus ci biir parce que dama xam li ci biir allez bi mu yëgee ne Sonko ngeen ndamu di bàkku ne moom dafa daw ci la bàyyi moom daf doon jàngale professeur la woon ci benn université doon jàngale ca la ko bàyyi ñëw senegal toog te bi Cheikh Yérim ñëwee ba tey noppiwul te waxam yépp soo ko dégloo daf naan buñ indi woon char de combat teg man damay wax di nga dégg ci benn vidéo mu ne kaso du dara lu mooy noppale ko mën a bind mën a xalaat mën a wir kan mooy wax sa xalaat di sóoraale kaso mooy xam nga ne di nga dem kaso maanaam waxi Cheikh Yérim yi paase rek boo ko déggee da ngay xam ne kii am na lu mu dégg am na lu muy defante lan la dégg Sonko nee na dina ko tëj lan lay defante faalewuma kaso te mënoo maa noppiloo lii moo ci am parce que Cheikh Yérim dina def sorti ba def na sorti ak Aïssatou ak euh, Aïssatou Diop Fall sorti six heures de temps wax lu ko neex dem na ci Maïmouna Ndour Faye dem na seen TV fu nekk lay dem lu nekk lay wax ngir bëgg woon sonk na ko ñun ñaar ay góor lañu te ñoo bokk Sénégal boo amee sa poste premier ministre man je suis journaliste àdduna yëpp xam ma ma liggéey fu ne damay wax man li ma saf en tant que maa ngi doon sénégalais loo man defal Sonko mënul ci moom dara lu may yóbbu kaso ay garde à yi wax la rek Cheikh Yérim dañ koy jàllale comme dama la ko waxee woon ci ci Lat Diop ci Lat Diop noonu na la ah. den koy mandat de dépôt parce que lu ñu wax la ba pare ñaar ñii nga ma laaj damaa xuus ba ci biir parce que dama xam maanaam list Ousmane Sonko bi ma wax la kan leen ci mujjee dugal. Hmm. Ahmed Ndoye. Ahmed Ndoye chroniqueur. leen ci mujjee dugal te suñ ko jàpput ci weer yu néew mbetteel dina am sum suma loxo de. mais mais mais téléphone Ahmed Ndoye mu ngi mu ngi sur écoute. Ahmed Ndoye téléphone am mu ngi sur écoute depuis deux semaines après élection yi leen ko def sur écoute ba saa si yàlla tey den koy topp léegi-léegi mu jot message bu mu xamut borom boole neen ko fekk ay nit pour ñu ñëw naan ko dañuy dugg ci mbiri pétrole ak dañuy dañu bëgg business mu bañ ñoom ñoo yónni pour am lu luñ ko taqal parce que la muy wax bu ñu ko ci jàppee dafay flagrant mais bu continuer nii nekk messi de l'opposition de de l' opposition di def lu doy waar de maanaam ci liste bi la bokk moom Ahmed Ndoye léegi ñu jàpp ko. léegi ñu euh, jàpp ko Ahmed nga nga baal ma ngir yàlla rek en tant qu'intellectuel bii laa lay laaj c'est vrai que booy wax ñu bari xëy na li ñuy gis rek mooy xëy na sympathisant nga wala ay xaritu Macky Sall la nga ak Lat Diop ak yu demee noonu mais tey en tant que qu'intellectuel noo jàngatee règlement de compte bi am. coowal politique commencé am arrestation bari euh, ci gouvernement boo xam ne bi ñu toog ak léegi defuñu juróom benn weer dafa teel de trop euh, kan nga jàpp ni moo échoué da nga jàpp ni bi ñëw la di attaqué état bi loolu moo teel wala tamit euh, li nga xamee ni aussi moom la état bi di def mooy rôlam jamono ji oppos oppo maanaam opposant yi attaqué wuñ état xam nga état bi ñen ñoo leen di attaqué hmm. maanaam divorce bi gën a métti ci politique gu Sénégal mooy divorce divorce jeunesse bi ak Ousmane sonk muy benn divorce entre jomaay ak sonk te loolu man maa ngi koy xaar su amul moom may bett mais bu amee bettuma ndaw ñi bés bu ñuy weddi Sonko nañ ko joxee seen bakkan yi ba ba mu doon président ñu jaayee ko seen bakkan yi pour mu wàcc bés boobu la Sénégal di neex dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam Ousmane sonk ay opposant moom moo leen defar ci saaga ndey moo leen defar ci xaste moo leen defar ci sos moo leen defar ci ñeme dee ak bëgg dee ngir politique sénégalais bu jaayaan boppam gàccee taxaw mu dugg ci mbënd mi pour am ñëw dee senegale bu jaayaan boppam sëriñam nga laal waaye jaay sa bopp sa bakkan ngir politique bëriwutoon ci réew mi te dem neen ba dee ci politique normale ba dañuy compter dizaine de morts ngir mala dàmp ak dàmpooma troisième mandat suñ législative suñ carte bi dugg na fi génn fële ay bakkan di dee gratuitement ci politique gu Sénégal mësul am lu mooy ci jamono sonk lii mooy dëkk léegi nag moom sonk intellectuellement li muy hmm. def nii dafay wane ñett tële ragal dictateur tële lan la nga diggee woon mënoo ko nit ñi di la fàttali say kàddu di la fàttali say promesse di wax li nga xam ne moom la ñu jàng nga ne noppi leen mbaa ma tëj leen kaso li ci gën a garaaw kañ la sonk commencé tëj mooy bi mu changé procureur bi mu changé juge bi mu changé chef de police gendarmerie dikk ci la commencé jàppe ñan la fal mooy ñi nga xam ne dañoo wor Sénégal dàqoon na fenn ci seen professionnalisme mooy ay juge yu waat daan jël dossier confidentiel di ko jox Ousmane Sonko nga xam ne ku jubadi sëtu yonent bi bi jabaram jëlee xaalis ci nawleem mm. posone ko mu dee ngir mu takk ko daf ko ne ah wax dëgg yàlla dinaa la fay waaye duma la takk ndax ni ma la fayee pour nga sëy posone sa jëkkër mu dee bu ma la takkee keneen fay la nga mm. ne ma donc naa la fay waaye duma la takk kookoo am xel koo kookoo nekk ci dëgg Ousmane Sonko nag juge yii gendarmerie mi yi mu fan biñ nekkee ci système bi nekk ay républicain dañ daan jël dossier confidentiel di ko defloo di ko wan Ousmane Sonko ñoom la neexal tegaat leen fi waan maanaam workat bu ànd ak workat seen ànd fa ñuy mujj du neex fenkat bu ànd ak fenkat fa ñuy mujj du neex waaye nit ku yées ku ànd ak nit ku yées fu ñuy mujj du baax ñii la Ousmane ko fal wàccee leen ci la door a jàppee ça veut que lépp lu muy def xam na ko comme ni muy manipuler sénégalais waaye manipulation moo guddul fan moo tax ma demoon ci benn sëriñ Mali ma ne ko man dama bëgg bayre mu ne ma mooy njub mm. képp ku la bañoon bu la xamee bëgg la ku la bëgg ci njub dootul la bañ ba na tukki da nga a gis ko bëgg yonent bi xëy bañ ko waxuma ko mm. doon jullit de xamoo lislaam nga dem ba mu yàgg weddi lislaam waxuma loolu nga xam yonentu ba bëgg ko sa xol bi bañ ko amul ndax njub gi ci moom moom la Seydi Aliou radiyallahu anhu ne lépp lu la naqari ci Baye Niass rek mbaax goo xamut la waaye boo mhm. xamee la la naqari ci Baye bu dee Baye ko wala moo ko def boo ko xamee rek mbaax la waaye yow yaa xamutoon ne mbaax la kon Ousmane Sonko nguuram gi dafa échec muy benn ragal lan la ragal Ousmane Sonko dafa ragal confrontation ñemewu ko moo tax du waxoon naa ko du mës ubbi toog nii journaliste bu ne ñëw amul question bu ñu waaj laajal lu la neex ma tontu la Ousmane Sonko ñemewu ko la preuve bi mu toogee bu yàggul français ñëw laaj ko ci jàmbatu askan wi jafe-jafe réew mi lu mu ko doon tey loolu du waxtaan bi mais Sénégal lan leen war a waxtaanee lu mooy néew ju doole ji lekk inondation bi wàññeeku électricité bi dem ñëw njàng mi continuer jaay am am mën a lekk lan leen war a waxtaani lâché goo benn projet donc muy beneen bi ci des mooy dictateur Ousmane Sonko every red flag has been sown but ignored maanaam bépp lu war a ñaaw njort feeñal na ko wax na ko jëf na ko mais ñu aju loolu lu tax ñu aju ko ay taalibe leen mere neen suñuy sëriñ parce que dañu jàpp ne tedd nga bi sëriñ si nekkee mooy suñ torox tànge ñun ñu bañ ci sëriñ si lan moo tax ñu du moyu ko dañoo mere Macky Sall amuñ yaakaar ci ne Idi mën na koo daane amuñ yaakaar ci Pape Djibril Fall sonk la ñu yaakaar ñu dem wàlli bañe ngir wàccee Macky Sall lu tax ñu du ko ñi ànd ak moom boo ne Sonko moo baax ñu tàccu la sonk moo bon ñu saaga sa ndey te sénégalais ñemewul saaga ñemewul sos ñemewul xaawi sutura ñu dem farak moom te bëgguñ ko léegi bul fàtte ne toogoon na fi ne groupe whatsapp bi ñu nekk tamu mu ko ku ci waxul lu ko neexul mu génne la moo leen génne sénégalais na ko yaa tey bul fàtte ne woote na mortel combat ñu ne ko yow yaa bul fàtte toog na en tant que kilifa ci télé ñëpp di ko seetaan mu ne Adji Sarr mhm. comme dàngin bu AVC xas na mbindeefum yàlla xas na jigéen ci kilifa ak ni jigéen amee cër ñu nangul ko ko ba jigéen ñi di toppandoor Adji Sarr nan ko dàngin bu fanaan donc euh, dictateur la Sonko dictateur ah. d' accord mais Cheikh Ahmed bu bu weesoo li nga xam ne nii vraiment lu fi xew lu nekk rek débat politique ngeen koy def ah, bëgg ko politiser aussi euh, tey jàppoo ni solo slogan wu jub jubal jubanti maanaam fexe ba lépp loo xam ne rek daan na fi am bokk na ci li ñuy toppee Cheikh Yérim Seck diffamation Euh, ak diffusion des fausses nouvelles maanaam wax loo xam ne amul beneen bi tamit ngay joxe ay xibaar yoo xam ni da ko teg ci système yu ba kan jàppoon ni aussi loolu dafay woote rek solo slogan ak changement bi nga xam ne moom la woote ci lépp loo xam ne jamono ji yaa ngi koy wax mu war a tegu ci état bi wala ci sa moromu nit tamit dafa war a tënku ci lu leer ci loo xam ni bu la yoon waxee tamit ngay indi lu koy saxal Cissé <laughs> c'est que c'est que Abasso Abasso <laughs> waratu da am waratu da am <laughs> maanaam Abasso dafa war jub jubal jubbanti mais njub mooy la jubanti njub mooy booy wax mais wax loolu leer fausse nouvelle nga bàyyi ko diffamation di sosal Cheikh Ahmed Cissé ci loo xam ne mënoo ko prouver fenn wala mënoo ko saxal nga bàyyi ci la bokk. en bu buñ ba pare lan mooy jubbanti lan la ñuy jubbanti buñ ko jubbante ba pare lu ñuy jubal maanaam wax ji ci boppam tappale la. jub jubal jubbanti tappale la jub point ki jub foog mu jubal jubal gi mooy delluwaat ginnaaw ci baati njub gi boo jubalee dangay ngay jubbanti benn baat la ñu tas ko ba foog ne xam-xam la loolu ci boppam tappale la arnaque la grammatically grammairement at arnaque la olof yi xam ne ni arnaque la ku jubul mënoo jubbanti mm-hmm. ku jubbantiwul mënoo jubal da nga mës a dégg alxuraan yal nañu yàlla may njub ñu jubal ñu jubbanti déedéet na ñu yàlla may njub point boo jubee jubal mënoo jub te jubaloo mu ngi mel ni bëgg yàlla te doo ko jaamu mënta ne bëgg yàlla te doo ko sant mënul nekk c'est impossible maanaam baati tappale la arnaque la pour neex le rek man bi ma déggee baat bi moo yeewi askan wi yam yeewi askan wi saaga <laughs> jub jubal jubbanti arnaque la ñetti baat la yoo xam ne benn bi mu jur yëpp waaye ñu teg ko jub jubal jubanti rek xale yi jàpp si jub jubal jubanti bi waaw yar bi day daal dañuy jub jubal jubbanti mais damay ree dama naan non sénégalais am na xel mais muusul au lieu que ñu toog grammairement xool lan mooy jub d'abord ok ndax jub ak jubanti du benn ok jubbanti ak ju jubal est-ce que dañu am différence. pourquoi mm-hmm. trois sept slogans yi. ñu ñu naxee mm-hmm. ci xaw ma un fois un bi un peuple ñu indi ñetti baat teg. pour wan la ne ñun mm-hmm. olof leen pan panafricaniste leen waaw ay salafiste leen mais en même temps mouridu civiliste leen ay tijaan leen sénégalais leen ay patriote leen donc dañuy. jubal jubbanti mënul nekk. jub. boo xam ne jubal boo xam ne jubbanti boo xam ne mënuñ laa may nga critiquer Sonko Sonko mënul jël critique te yonentu daan ko jël njiit lu mën a dem danga war a am koo xam ne daf lay wax dëgg te la rus ngeen di xuloo ko xeex alaaji Abdul Aziz Sy Dabakh toog na fi feebar ñu ne ko lan la mu ne vingt-sept jours mu ngi nii benn doomu Aadama waxut na ma Abdou du nii danga juum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mënumaa juum te may jaamab yàlla lii mooma feebar damaa namu dëgg ma ne ko si Malick su ma fa nekkoon na la <laughs> téeméeri at sax doo juum ndax ku wékki mhm. yàlla sa lépp yàlla méngoo sa mbir doo juum mhm. jaam bi day juum bu dee dafa des ci insaaniya ci lay juum mhm. mais booy wax te yàlla tax di def te yàlla tax di xool te yàlla tax di lekk yàlla tax lépp mu ñeel jëmmi yàlla ji bu yàlla méngoo sa mbir dootoo juum ndax alkamaal moo lay ñëwal nga doon insaanu kaamil ku fa yegg doo juum mais nit ku dul juum amul nit ku extraordinaire nag du juum te dara mënut tax nga extraordinaire du du du du jàng alxuraan moo la koy def. du mhm. sant si moo la koy def nii Mbàkke nii ñes méngoo mhm. yàlla te muy dëgg te sax ca moo la koy def bëgg yonantu te muy dëgg sax ci di ko roy moo la fay yóbbu tudd turu yàlla yi ba mu ma ba mu génn sa làmmiñ dem sa xel mi génn sa xel mi dem sa xol bi génn ci xol bi dem ci ruux gi ba ruux gi su jotal yàlla moo la fay bàyyi képp amul leneen du secret donc jub jubal jubbante bi fenn la arnaque la du dëgg te yow xam nga li ma wax ndax yow nii danga baax tàllal micro bi waaye bu ñu la tàllaloon micro di la laaj ci masalam diine nga tontu leen te doo juum parce que ba jàng jotee da nga jàngi ba mm-hmm. xam-xam waree jógee ci yàlla yàlla daf la cee wërsëgal ba mu la wërsëgalee dafa ànd ak modeste gisuma kuy téye micro ci réew mi koo xam ne koo tàllal micro yow nga laaj ko ci diina lu mu mën a tontu te mënoo ko amul man maa ko wax yow congaan mi may laaj yow hmm. gisuma koo mës a interview tàllal ko micro laaj ko ci diina mu tontu loo xamul man gisuma ko te waxantu wu hmm. dama ko xam dëgg fa nga juddoo nga jàngi ñu yóbbu la ba Gàmbi nga jàngi xam-xam delluwaat jàngi dem ba Maroc jàngi ñëwaatoo am modest nag am métier di liggéey di dugg di ut ay information di léegi yenn saa nga monté nit interview mu ju wax la 9h ngay duggaat sa kër une heure ci guddi te yaa ngi bàyyi soxna. si la waaw borom xam-xam bu amul métier tappalekat la. d'accord mais mais am. si si Amath am nañu jàpp tamit ni wax dëgg yàlla tamit euh, sikk Ousmane sonk ci doxalin bi tamit dafay wane rek ñàkk a tëddee li nga xam ne mooy njaaxaanaay ndax ñi mu wutu tamit euh, jëflante bi Ousmane Sonko di jëflanteeg ñi nga xam ne ñoom lay jëflanteeg ci yoon ñoom tamit daan nañ def lu méngoog loolu ndax jàppoo ni tamit li woykat bi doon wax rek kamaata diinu daanu jëf la joo xam ni ñi yoon tegagum loxo rek xëy na daal nañ ko jëflanteek ñi fi nekkoon loolu waral tey état bi fi nekk tamit di jëflanteeg yéen noonu waaye bul fàtte ne loolu lu bon la mbon googu noonu moo tax ñu am yaakaar ci Ousmane Sonko mi ñu promettroon ne article quatre-vingt du dara lu mooy nasaxal démocratie te mu ngi fa bàyyi article quatre te ñu ngi koy jëfandikoo maanaam li nga wax mooy dëgg dafa bon kumba mi am ndey la ak kumba mi amul ndey mu métti ñu mu ñëw promettre ñu dig ñu am ci ñun ñu ko gëm muy cinquante-quatre pour cent mu joxañ ko amul charisme crédibilité ak mat-mat bi maqaama ngir yenu nguur gi muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mii nga xam ne ku ko dénkoon suñ kër sa mënu ko régler moom mënut a régler sa këram Sonko tegal ñu ko ñu nangu ngir Sonko ñun ñi bañoon daf ñu war a neex ñu nangu mu naqari ñu ñu nangu ndax moom la fi yàlla teg nangu dogali borom bi ci gëm yàlla la bokk léegi Sonko moomu nag lam ñu doon wan ne du lu baax bañ gëm ko moom la continuer def lii mooy problème bi sonko moom bu fàtte maanaam sonko santut yàlla sant yàlla ci sa nattu bi ngay sante yàlla natt bi ko yàlla nattu mooy den koo dàq xoolal li xew ci ci ci ci direction bi ki mhm. tuumaal ministre bi ñu wàccee ki tuumaal ministre bi maanaam den ko tuumaal ñu wàccee ko moom mu tuumaal ministre ne moom la jox xaalis ñu bàyyi ministre wàccee ko moom ana jubal ana jubal bi jubbanti bi anam ñaareel ba tegu ci moom mu ne article quatre-vingt baaxul dafay nasaxal démocratie mu ne waruñoo jàpp kenn ci wax avem ak kii dafa da nga fen ak fenuloo moom tiim na fi Macky Sall ne ko fenkat nga moo dàq fen ci histoire humanité saaga na fi Mimi Touré li Sonko def en tant que opposant gisuma ku ko ñemee def parce que nit ñi dañu am xel xam nguur bëgg jàmm duñ ay rebel duñ ñiti fitna li sonk doon def ñemewuñ ko te moom dafa fàtte ne président amul bu amul amul bayre de <laughs> discours Sonko ba muy nekk opposant discours yu dal la daan def nit ñi di ko xam di ko këru di ko déglu léegi nit Sonko day wax ba nit ñi nga xam ne sa wax liñ ci mën a fàttaliku retenir ko mooy wax nañu ne ku ne yaa ngi am borom 900000 mais man wax naa ko démb ma ku war a fay sa 900000 ci man nga fay ko fay ma ko man. man dinaa mën a contrôler neuf cent mille nante yëpp. donc donc daf ñuy fen fen fen fen fen ba finalement fenni Sonko yi dootoo ko mën a weddi doo ko mën a défendre danga naan moo tey seetlul bu baax a baax a baax ku wax ci sonk réponse yi xam nga lan la attaque personnelle saaga la xas la wax la yow mais mënuñoo défendre li ngay wax mënuñ ko sonk amatul bayre bi mu amoon parce que nguur moo amul bayre sénégalais da lay gunge ba nga toog ci nguur mu delluwaat ginnaaw mm-hmm. ànd ak say noonu xeexaat la ñoom noonu rek Ablaye wadd bi muy ñëw 2000 ni ko Sénégal bëggee woon foog nga ne ay quatorze personnes dinañ dee pour mu wàcc nguur gi mm-hmm. alternance boobu mënatut a am bi muy taxaw stade amitié naan travailler mm-hmm. toujours travailler beaucoup travailler stade bi di yuuxu yuuxu yooyu moo law ba Kër Massar ba Saloum ba Jolof ba. ngir ma jëmee ci bés yow ki nga xamee ni mooy Cheikh Yérim Seck dernière question bi ma la ciy laaj euh, c'est vrai que def nañ ko débat politique quand même euh, lan nga jàpp ni moo war a déranger état bi ba ñu jël Cheikh Yérim def ko cible bu weesoo li nga xamee ni. moom lañ koy toppee ci intellectuel boo xam ne dafa doon yëkkati kàddoom ñu toppee ko diffamation ak diffusion des fausses nouvelles. loolu c'est simple day wane seen cuune seen gàtt xel seen ñàkk a mën a gouverner parce que intellectuel bu mel ni Cheikh Yérim Seck nga jàpp ko xoolal pression internationale bi mu lay jural ndax journaliste la xoolal bi nga koy jox bu génnee amaat plateforme waxaat parce que jàpp-jàpp yi moo def euh, Pape Alé Niang directeur RTS. absolument fu mel ni RTS waxuma amul xam-xam bi jàng na li nit ñi jàng-jàng na ko. Mm-hmm. mais amul charisme bi. dafa wàccee daraja institution yi. parce que Pape Alé la mu ngi mel ni tey man am naa xam-xam am naa judd bi. Mhm. mais imagine nga jël ma rek def ma imam ratib bu Dakar mais day wàccee daraja ji on se dit te pourta jullit la jàng naa am naa xam-xam. Mhm. Mhm. mais na may waxee na may defee imam du ko defee. kon falma dafa am lu muy yàqal diine ñu jël Pape Alé Niang dëfalee ko neexalee ko RTS. parce que moo doon journaliste bi nangu woon a ànd ak ñoom di joxe seen xibaar di tëdd kasoo ko dem ak a ñëw te Pape Alé ci métier mi ñu nekk li ci Cheikh Yérim am amu ko ci fam ci yegg yegg ko ci lañ ca def defu ko te humainement ci ñoom ñaar rek qualité du ñu benn ku leen xam ñoom ñaar xam ku dul moroomi kenn ka ca des waxuma kii moo gën wala kële nag mais ku xam Pape Alé xam Cheikh Yérim Seck di nga xam ku ci gën moromam ku leen xamul nag xamoo leen dafay wane cuuneeg nguur gi mais yaa ngi jox doole koo xam ne mënoon naa ñàkk mënoon na ñàkk doole mhm. jooju warutoon a am privilège boobu noonu jox nga ko doole fu mu nekk jàpp nga ko mu gën a siw àdduna yépp dinañ xam mhm. te Cheikh Yérim organisation yi gën a mag ci journalisme ci àddina waxuma da cee bokk de da cee am kàddu ndax ba tey fii nga xam ne NATO FBI CIA fa la ñuy jëlee xibaar dafa am ñu ko bokk société civile nangam nangam journaliste Cheikh Yérim ci journaliste yooyu la bokk. amul luy xew ci sous région bi lu mu xamul. amul jiite réew bu toogal donc kon cuune la seen cuune la. mais tam dictateur. intellectuel buy wax xalaatam nga mënoon koo jël. mu nekk sa boor. di la liggéeyal positivement. di la joxeel xibaar yu la arrangé. nga war a def en face ak kooku. fu mu nekk Madiambal Diagne sa adversaire Bougane chef de média sa adversaire Cheikh Yérim Seck sa adversaire la ay ñoom Aïssata Diop Fall Bah ñooñu mënoo leen a am moom ñooñu moom den laa jomb xale yi de nee nañ ñi ngi lim yëpp ci waxin dañoo jafur maanaam la ñu doon am ci état ba fa nekk dañ teel a xam ni mënuñ ko am ndax changement dafay am ci réew mi moo waral position bi ñu jël xale yi ñoom loolu la ñuy wax ci internet bi sant yàlla wax sant yàlla bi nga a xale yi ndax ñoom xamuñ chiffre xamuñ xaalis xamuñ teranga Cheikh Yérim Seck këram giñ mujj a toog 400 millions mënut la koo may te ci këram yi la bokk këram giñ mujj a toog quatre cent million mënut la ko may te ci këram yi la bokk Guinée équatoriale Manson bi mu fa am doomu président bi dalal na fa ganam xaw ma sax du su génnee dina bëgg ma wax li Guinée Conakry la mu fa am ci non ñooñu xamuñ mais sant yàlla nga ne xale yi Cheikh Yérim Seck bu nit doon doyal teraanga bu amee ngor war na wax yàlla na ko doyal na ndax yàlla teral na ko. te ma wax ah. la ne sëriñ si ñuy waatee ci réew mi. allez-y. Cheikh Mouhamad Mahi Niass. Mm-hmm. xalifa bi toog laayeen. Mm-hmm. sëriñ Mountakha Mbacké. sëriñ mm-hmm. Babacar Sy Mansour. ñii leen jàpp ci suñ xel ne ñooy ñi gën a màgg ci diina ci Sénégal. bien vrai que man gëm naa ne am na ñu nekk ñu ma tuddul te gën leen a jege yàlla ndax ko ci gën a jege yàlla kenn xamu ko. mais ci liñ jàpp ñun mooy ñii ñooy suñuy kilifa diine. d'accord amuñu turu yàlla bu Cheikh Sirim sekk amul ndax turu yàlla benn ci gën a màgg te Cheikh Sirim am na ko mm-hmm. mooy ismullahil azam ci mboolem mm-hmm. asmaullahil husna ismullahil azam mooy ba gën a màgg xalif général yi ma tudd seen tur laa wax mm-hmm. ku ko ci amul Cheikh Sirim am na ko ku ko ci am yéen a yem d' accord Serigne bi en une minute aussi bëgg naa ñu wax aussi ci convocation bi nga ki nga xam ni mooy Bougane Gueye Dany donte ni moom it dëggal na boppam wane na ni jamono ji sax ñu bari jàpp nañ ni mooy le plus grand <laughs> opposant quand même euh, ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yoon woolu gi mu ko woolu noo ko jàngatee. borom nenu nenu baxal 150. <laughs> waaw loolu ci la ko trop nenu aussi. <laughs> Bougane mooy gagnant bi. ah bon Bougane parce que Bougane. am na média bi mu ngi góor góorlu financièrement mais amul bayre bi amul ndimbal bi jàppale bi ci peuple bi dañ koy seetaan di rek déglu ko ree suñ mënee ree ree moom mu xam ko nag di wax luy reetaanloo euh, saaku ngooñ ñaata lay jar sax su ma montoor bi soo ko tey lay am kër su ma nàngam moom doful mais xam na ne maanaam sa bugaan saxut ci xol yi daal maanaam ku bugaan jaral rey sa bopp amul léegi nag. Ah. mu le muy mu mu mu xam ne ñii cuune leen mu di leen provoqué di tiir sur Sonko pour ñu jàpp ko bañ jàpp ko am na li mu bëggoon foog mu am ay sympathisants mbàkke mbàkke yi dinañ. kon stratégie la stratégie la la fekk la boo xam ne Bougane Gueye mooy gañaar bi ndax dafa def lu ne. mënta am li ko ko war a may mooy kaso mu provoqué pour dugg kaso. te mm. kaay ma tëj la kaay ma tijji la moo ci topp buñ ko tijjee nag beneen bugaan mooy am te jamono biñ koy jàpp rajo mbi du noppi journalam bi du noppi télé bi du noppi te bu ñu amee marketing am stratégie bu baax ñoom chimère mi ma xam gars yi bu ñu jàppee nguur gi benn un mois nguur gi ñàkk sympata yu dul jeex bu man su ma doon ñoom buñ tiré sur Bougane sax na mel ni Bougane nekkul mais di génnee lu ñu war te génnee di ko wax di ko wane te muy dëgg su boobaa xam nga lu nguur gi di def. jàpp leen mm. dañuy dem tëji seen TV ak Zik FM su boobaa askan wi jug taxaw. te askan wi ñoo dooleel Sonko moom la leen naxewoon wal fajiri ne awma relation internationale dew ma ci benn nguur yéen laa yaakaar Sénégal jeunesse bi dénk naa leen suma bopp. dénk boobu mu dénk jeunesse yu boppam jeunesse na ko ah bon mm. ñun ñi ñuy xeex amuñu liggéey tekkiwuñ dara ci yaa ñu dénk sa bopp ku la laal dee ku la naan màndi ku la rey génn réew toogal fii. nit di jóge ko Ziguinchor maatam Ndar Tambacounda Diaobé Kaolack Kaffrine ci yee ñëw bunti kër sonk ne suñ ko waree jàpp tey ma dee te pourtant am na ñu dul julli tisbaar sax te jullit leen yàlla jaralu leen ko mais Sonko leen ko jar da nga leen koy respecté kon Bougane mooy gagnant bi dafay wane hmm. cuune nguur gi te dina leen coûter cher hmm. waaw parce que benn dàq sonk moo moo daane nguuru Macky la maanaam dàq bañ ko dàq inspecteur impôt et mm-hmm. domaine képp képp moo daaneel nguur gi. Mm-hmm. dàq boobu xam nga lu ñàkk fay dal mm-hmm. ñu ñëwaat ci mbiru Adji Sarr maanaam dàmp ak ma laa laaloo ma keroog la Sonko am doole politiquement ne ah tiens lii ëpp na nag daq nga nit ki dem na góor góorgóorlu nekk député nekk na nangam nekk na nangam nga ñëwaat nga di ko tuumal ay laal ak ay dàmp ci fukkat foo mhm. xam ne laalante mën na fa am <laughs> ñun ñuy dem massage xam ne ne happy ending dafa am finition total man dem katu massage laa xam naa ki xamul mënumaa wax man dama xam man dama dem lañ fay def ma def ko lañ fay def ñu def ma ko man mu neex lool ma demaat demaat demaat demaat demaat kon xam na waaw naanite lu mu xam la sonko dem man gëw ma ne dafa violé mais am na happy ending parce que la jaral sonko mu bàyyi garde corps soxna yi ci couvre-feu bi dem ah neex neexu massage ñi ko ñam duñ ko bàyyi donc loolu rek moo jox Sonko dëgg te pourtant Sonko juum na ci procès bi xaw ma suite bata la poste supprimé demoon naa laaj naa suma imaam Adji Sarr am na agrément bu koy wane ne ki ki kinésithérapie mën na defar yax ma laaj ko ba mu leer ma laaj suma ustaas mu ne ma dagan na dama toog ñu dàmp ma bisi tabaski la nangam nangam lay yoo xam ne jubul ñu ne koy eh, noppil loo mënti lay xam ne ne góor nga ah. da ngay daanu. mais faluñ imam. yaa soos c'est bon mais ñun dañuy continuer ak yow den laa bëgg. ngor googu Sénégalais lebal ko sonk mënu koo fay askan mënu ko. d' accord Cheikh Ahmed nga baal ma temps bi ci laay xëccoog rek en une bëgg naa la laaj aussi tey euh, ku yàlla may macha allah lu jëm ci li nga xam ne mooy communication naka nga jàngatee euh, pression ak débat politique bi nga xam ne dafa teel lool ci gouvernement bi fi nekk ñàkk chance la. wala euh, pression la dañ leen mënta may lu ñu mayoon ñi ko jiitu woon wala nan ko ko jàngatee débat politique bi ak pression politique bi ñuy dund teel na loolu ci nguur goo xam ne aussi nguur gu bees la. dafa am benn waaye mu jënd suma àndalaa buri bi mu laaj ma numéro bi ma ne ko 77 la 285 38 38 mu woote jënd mu naan ko mercredi vendredi samedi mu woo ma dama sëñ bi sa garab gi des naa baax de ma ne ko lu tax. mu ne ma ñetti fan rek la ma dimbale ma taxawal te yow dang naan avis la gis nga wax su rëyee loo jëf ñu xeeb ko fukki at yi li ci Sonko wax mënu koo def Sonko gëmloo woon na sénégalais yi ba bu Amadou Ba falu woon defar tali or ñu ne ko bëgguñ sonkoo ngeeg jamaa d'accord léegi nag expectation yi dafa xaay xam nga ne Real Madrid toog na ay un an kenn gañewu ko mais doo ko dégg parce que Real la dafa baaxoo gagné mais un an biir Bernabéu nit ñëwul fa gagné leen du Ligue de champion du Copa del Rey du du du euh, La Liga gagné woo biir Bernabéu mais du deful bës parce que c'est Real xam nga ne Real Madrid liñ euh, Manchester United euh, dafa perte 3-0 àdduna yëpp di ci wax parce que c'est Manchester United biir Old Trafford. c'est pas normal donc Ousmane Sonko li tax coow li teel a bari. dafa waxa waxa waxa waxa ba moom xamatul lu muy wax mu indi délai ne sénégalais bu ngeen ma falee deux mois ma changé ñu fal ko deux mois mu ne vingt deux septembre ma jox leen projet tey la deux octobre gisuñ projet. d'accord léegi wax yu bari yii nag. bët bu set. Uh-huh. ku doon wax da ciy mën a ñoppati di yokk ñoppati di yokk ñoppati di yokk su boobaa coow li day bëri léegi nag ñoom ñu ñu jë maanaam safara am na Ousmane Sonko jël karasine sotti. xam nga mm. lan mooy karasine bi. jàpp Kader chroniqueur ñu ne déedéet nga jàpp Lat Diop ñu ne déedéet foofu baaxut nga jàpp Cheikh Yérim Seck ñu ne déedéet nga woo woowati Bougane Gueye ñoom ñoo jëfuur parce que ñoo fen ba fen luñ mënta defar di jàpp ñi nga xam ne jàpp ne na askan wi dañ leen mere ngir neexalee ko askan wi hmm. waaye su fekkee ne jàpp yi mooy projet bi kon yàlla neen ma jàpp man ndax projet bi dem mooy mbégte Sénégal idi bi leer na Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Cissé borom ànd laa bëgg Cheikh bi nga baal ma rek temps bi ci laa doon xëccoog maa ngi doon am mbégte di la gërëmati bu baax a baax ci disponibilité bi Cissé ma la koy delloo di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu képp koo xam ne li ma wax neex na la ma man daf ma neex ma ma tey rek wax ko bu la métti nga muñ te xam ne maa tey lu waay mën na ko def lu waay xam na ko wax maa ko assumé Lat Diop yàlla na génn ci jàmm Cheikh Yérim Seck yàlla na génn ci jàmm képp kuñ jàpp ci lu dul dëgg yàlla na nga génn ci jàmm yàllaa ko taxawal yàlla na ko yàlla daane ci jàmm ak salaam ñu tële ñi ñu dem amadu Ba mi mënta mën a defar réew mi ñëw jël réew mi wasalaamaaleykum wa